ñu fekk leen ci liggéey euh, yile la euh, di biral euh, seeni tànk ngir boroom marchandise yi daal di ciy gaaw a jot bu ñu sukkandikoo nag ci njiit yi li am na lu bari lu muy nëbb. dafa am lu fi jaar loo xam ne tamit moo taxoon nit ñi ñëpp bàyyeeku mooy coronavirus bi fi jaar yaa fi def na fi deux ans. politique bi tamit jaar fi bon. dañu manqué lu bari moo tax carré touristes yi nangatul ñëw parce que amatuñu parkin ca yooyu la bërëb nag ñàkkum cet daal di fay fekk ñàkkum kaaraange. ñun ñoo gën a yor suñu kaaraange bu njëkk doonoon am benn policier bu fi nekk. village bi ñun sax ñun ñoo gën a yor suñu kaaraange bu njëkk doonoon am benn policier bu fi nekk. 24 heures mais léegi amatulu benn policier euh, bu nu ministre de l' intérieur mënoon di jox tamit police boo xam ne day nekk suñu vigile fii comme bu njëkk na mu meloon tamit loolu dina baax quoi. ngir yeesal xar kanamu village artisanal bu Soumbédioune euh, bi ñu tabax nag euh, ci atum 1961 ña fa nekk rek daal di boole seen doole awale ko ci ab lël bi ñu duppee Jivas li ko tax a jóg nag moo di seen àq ak seen yelleef ñu daal di ciy jot. ñooy waxal artisan yi bu dara amee foire bu amee dara yëpp ci kuréel gi leen ñuy jaar pour seet ñi nga xam ne ñoo mën a dem ak ñu mënta dem yëpp nu seet na lañ koy doxale quoi loolu fi kuréel gi jariñ ak lépp loo xam ni njariñ la ci biir village bi tam kuréel gi moo koy xëcc mu ñu mën a ñëw. Euh, ñeent si seeni moroom ñoo ngi ci jamono ji ñu wax ak yéen nag ca Dowa ngir yeesal seen xam-xam ci wàllum artisanat.